ba góor coom ñëwee ba sëñ bi xaaj rek nga gis ñu ñu delluwaat ci seen jumaa yi ñu fekk lislaam loolu waral waaye lu métti lu kuy oote nit nit rek ci mu nit ku dem fekk ay innocent yoo xam ne amewuñ gànnaay xeexuñ kenn seen bakkan lañ seen borom ñi ñëw rey nga xam ne ba tey jii addina bi waxkat yu mag yi nga xam ne bu fekkoon benn jullit bu dëgg moo def loolu da nga gis président yëpp def ay déclaration mais ñu def ay def ay def yooyu muy def yëpp ñu ngi métti ñu dem ba vingtième siècle dem bu vingtième sét li Nixon waxoon doomu aadama dem ba mo na dem ci kaw ci way waaye ëllëg ko xamul na lay def ba dox ak boppam ci suuf ci jaam l'islam lañi toñ te mo ngeen xass ko du sét islam fuubiya islam islam islam rek وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم بين الإسلام رجلا بين الدين رجلا بين يوم رجلا diine jàmm la jàmm ju xajow ñëpp ñëpp bu fekkee am na ñenn ñenn ñoo xam ne dañoo bëtt di juddoo islam di def lu ñaaw lu ñaaw mel nii dafay encouragé ñooñu moo tax àddina yëpp war nañoo taxaw wane ne ñu ngi lii ci tur bu mu defee ci tur diine ci turi race ci turi nationalisme ci turi européen ci turi bu mu mën defee ñi ngi wax ne ñi ngi bañ jëf ju ñaaw ñooñu ñi ngi ñaanal ñooñu li nga xam ne yàlla jël na leen ci anam boobu yàlla yërëm leen yërëm seen njaboot waaye ñi ngi ñaanal ci ñun yi nga xam ne ah, am nañ ay lakk ci seen i marché fan yi ñooñu yàlla utalal leen lu li nga xam ne moom lañ ñàkk yàlla defal jàmm suñu réew jàmm yoo xam ne dañ xam ne jàmm la defal ni jàmm ci suñu xol ñun ñëpp li Cheikh Ibrahima di waxoon ci commencement bi ñu nuyuwante am jàmm baax na baax baax na ndax yi ñu soxla si wax ne tasaaxu yasru al-ghina te tasaaxu yasru al-sha'na joxanteelal loxo wàññante gi dem joxanteelal loxo sibante gi dem yéen su laaj dama nee na jigéen dara na day boromam jox ko loxo seen bàkkaat yi rot mel ni yaa di doon sa xet gi dóor ko ci garab yi naka lay ruusee yooyu yëpp nag yaakaar nañu ci barke jitaar yi yaakaar nañu ci barke saala yi ne yaakaar nañu ci barke ñu baax ñi ñu doon tudd yaakaar nañu ci barke wala Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñu ngi ñaan yàlla an yanzura ilayna jamian bi ayni rahmatihi العربية من غير تعب ولا مشقة ولا غير ولا قيد ولا شق إلا مجرد السلوك خراج من تبارك وتعالى ويحفظنا ويحفظ ما معنا ومن معنا ويحفظ عيالنا وأحبابنا وتلامذتنا وخدامنا ومن يحكمنا ويحفظ حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اللهم إن وجهك أيديهم بنفسنا آمين آمين يا رب آمين يا رب أحبابنا وأنصارنا من حضر من دنيا ولا ودنا وأخذنا وأرضانا وجعلنا وأحفظنا وسدد أمورنا وأحفظنا amiin yaa rabbi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 barhaamu baun waraun alifun thumma haa mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan